s'il vous plaît, doole ah boo xam ne dafa ñëw fekk ci kenn ci naataango yi muy le ministre des forces armées monsieur docteur tin Augustin a moom ak mbokkam ak xaritam yi dëkk fii yëpp rawatina kenn ki nga xam ne président def koo dénk kuréel kuréel yi nga xam ne ñoo yore l'ensemble des élus du Sénégal le ministre Mor Ngom Abdou Ndene qui est également kenn koo xamante ne kii fële ca Thiès cale ca Tiwaawoon ah xam ko lool président la bi fonk ko lool mu am ay yooy jur yu baax mais fàtte loolu yëpp nekk président man soxlawuma dara jàppale la rek laa bëgg mais kooku également buñ ko gisee fii sa wet monsieur le maire dañu lay wax rek ne yow ak say naataango yi fi nekk bu dee bu bu bu yeboo seen xel dal autour du président de la république Macky Sall danañ waxtaan ak moom déglu nañ doléance yi muy chauffeur si muy jigéen ñi muy képp ku fiy daan sa doole dégg nañ li nga xam ne wax ngeen ko pour problème mu ndox mi pour problème mu GIE yi pour problème financement yi mais surtout pour problème mu ah seen gox bi lu gën a tax mu bokk ci cité yi nga xam ne ñu ngi développé wu. noo tax président de la république def le plan d'urgence pour le développement communautaire ah monsieur Guèye yow mi nga xam ne ak sagar. ngeen yéen a fi toogaloon APR yaakaar seen comportement danaa ko wax président de la république bi mu leen waxee ne topp leen ci gannaaw seen xarit seen maire Mamadou Ciss ah yàlla mooy joxe ndam mooy joxe ndam ba tànk comme ni ko joxe président jox na ko fii ci Kër Moussa seen xarit seen maire ah Mamadou Ciss waay waay waay nañ ko jàppale moo tax danaa wax président de dégg ngeen oote bi kenn ku ci ne boo gisee koo xam ne mat na la njiit toppal ci ginnaawam te xam ne njiit yàlla moo koy joxe ah Benno Bokk Yaakaar yéen ñi fi jël parole jàppale leen maire bi ah li nga xam ne nag mooy yëngatu yi xew ci parti bi parti yi ah loolu ci démocratie foog muy am mais jotewul dara ak kasaaroo ñun am nañ yaakaar ne mbootaay bii mbooloo mi ànd ak président de la république Macky li ko sos mooy njëriñu Sénégal li ko sos mooy lan mooy li ñu war a def ñun ñëpp joxante ay loxo pour Sénégal jëm kanam loolu moo ëpp doole di xaste di saaga alors que saaga yenn yi nga xam ne ah boo xoolee ba xool démb ak barki démb yàggul dara ah ñoom amul dara luñ fi def loo xam ne mën na tax tey ñu am yaakaar ci ñoom ne mën nañu remplacer président Macky Sall xam ngeen li may wax jarul may tudd ay tur wante ñooñu sax maa ngi leen di tendre la main à l'ancien premier ministre Idrissa Seck foog ma tudd ko sama xarit la palaasam ci wetu président Macky Sall la ah bu ko defule dana xam ne population sénégalaise kenn mënatu leen na ah ku jàppalewul président Macky Sall tey ci liggéey bii muy def pour jëmale Sénégal kanam ah boo demee ba mu yàgg yal na yàlla foot sa xol delloo si la nga xam ne président Macky Sall àndandoor la àndandoor la te àndandoor mooy ki nga xam ne day fàtte day jéggale ah day tànqamlu te day def lépp pour Sénégal jëm kanam salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu